baax na ci gune kër gi mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Futur Média seen émission sama kër ñu ñëwaat nag euh, samdi ji euh, ngir euh, dégtal leen lépp nag lu jëm ci wàllum foncier ak wàllum immobilier nañu ko defee kon samedi ju ne tey nag dañoo daal di jël kon autoroute à péage daal di jaaree nag fi nga xamante ni moom mooy Sébikotane daal di ñëw kilomètre cinquante daal di jàdd ñëw commune bu kon Kër Moussa loo ko waral moom mooy xam ngeen ne nouvelle ville installé waaye tamit lu jëm ci aéroport euh, bu Diass euh, lu jëm nag ci foncier euh, demande bi maanaam dafa bëri loolu léegi da ngeen di gis ñu ci gën a bari dañuy jaay ay suuf ca Diass wala sax ci ay dëkk yi nga xamante ni moom moo jege loolu euh, Kër Moussa moo tax dañoo fas yéene ñëw waxtaan ak euh, maire bii di Momar Ciss waxtaan ak moom euh, jëmee ko nag ci foncier bi nan lañ koy protéger parce que aussi mënuñu kon ku jóg ne day jaay suuf ci commune bu ne moo tax nag tey dañoo tànn ñu waxtaan ak ñoom wax leen itamit lu jëm ci demande bi nga xamante ni am na ci Kër Moussa waaye aussi am na ci diwaanu Thiès de manière générale fii nag mbokk yi ci commune Kër Moussa jàpp leen ne 36 villages ñu ñoo fi daal di nekk lan mooy spécificité wu euh, Kër Moussa yan jafe-jafe suuf lañ fi am euh, fii ak commune bu Thiès dañuy ànd ak euh, maire bi di Momar Ciss mais aussi dañ fi fekk si suñu correspondant régional di Cheikh Anta moom la ñu fas yéene daal di àndal ci émission bi. di jaajëfal bu baax a baax euh, monsieur Thiongane ak euh, Cheikh Anta Diop bi ñu dalal kon ci euh, buntu mairie bu Kër Moussa ñu bëri nag dañuy wax Kër musa waaye Kër Moussa la fii waxoon naa ko sànq boo dépassé kilomètre cinquante boo jàddee rek soriwul di nga fekk kon dëkk wi ak commune bi sànq 36 village laa leen wax ne moo nekk ci Kër Moussa la indi waxtaan bi mbokk yi wax naa leen ko sànq. Kër Moussa nekk na léegi benn commune bi nga xamante ni euh, dañ ko rek daal di solicité lu bëri bëri rawatina ci wàllu assiette foncière bi nga xamante ni yor nañ ko loo ko waral mooy euh, li ñuy wax euh, création de ville nouvelle li ñuy rek daal di samp un peu partout ci mel ni ay Dagaxolpa Diamniadio am na sax ñenn ñu nga xamante ni dañoo bëgg ñëw dëkk si fii pour mën di dem di liggéey yu ci mel ni ay AIBD ak yi ni mel moo tax nag faw ñu sekk waxtaan ak maire bi di Momar Ciss mi ñu dalal kon ci bureau bi monsieur le maire maa ngi lay nuyu. bu baax ne Dieynaba di leen jaajëfal bu baax a baax ci dalal bi ñu dalal. merci ñun itam ñu ngi leen di jaajëfal aussi ci ñëw bi ngeen ñëw fii tey à Kër Moussa. Euh, Kër Moussa nag yàgg dañ koo dégg euh, mais dañ koy gën di faral di dégg euh, depuis ba ñu implanté aéroport international Blaise Diagne 136 village laa ne moo nekk ci Kër Moussa est-ce que loolu xibaar bu wóor la. waaw lu wóor la commune bi 36 villages la effectivement comme ni ngeen ko waxee. Euh, depuis l'avènement de l'aéroport aussi yaakaar naa euh, turu commune bi gën naa yëkkatiku parce que ku wax aéroport li wolof yi wax rek ku ku ku ku wol mburu tuddub tuddub dëkk looloo tax tey Kër Moussa moom foo dem ci àdduna bi ñu ngi koy ñu ngi koy wax parce que aéroport bi moo tax foofu aussi dama am rek précision bu ndaw bu ma ciy def euh, xam nga aéroport bi dafa nekk à cheval entre deux communes cest à la commune de Kër Moussa et la commune de Diass souvent ñaare sax day am euh, ay ay ay ay euh, malentendu yi ci am ci communication yi envers vous même la presse parce que aussi euh, la majeure partie ci commune ci ci ci aéroport bi dafa nekk ci biir commune Kër Moussa. la plupart maanaam partie bi gën a mag euh, mag waaye maanaam li ma bëgg a wax foofu mooy li mu impacté Kër Moussa. Mhm. impacté wu ko Diass. Mhm. un Kër Moussa moo am trois villages yoo xam ne dañ leen a. déplacé déplacé. Mhm. leen feneen. seul Kër Moussa aussi euh, moom moo gën a impacté wu sur le plan des population sur le plan de superficie et nangam ak nangam yëpp. voilà noonu la demee. waaye mhm. donc Kër Moussa moo gën a impacté ci euh, aéroport bi. mais Kër Moussa aussi nekk mhm. na commune bi mhm. nga xamante ni dañu leen sollicité bu baax. ci ci affaire euh, mbirum foncier. Euh, jamono ji sa assiette foncière fan la toll. voilà xam nga souvent bu ñu waxee aéroport fu mu nekk nit ñi da wuuti. croyant que peut-être xëy na na mu demee woon Dakar noonu lay demee fii mais nag c'est différent dans la mesure où assiette. aéroport bi c'est bien sécurisé euh, c'est bien réglementé aussi parce que exemple bi ma ciy joxe rek mooy entre clôture wu aéroport bi hmm, ak li war a des war a nekk trois cent cinquante mètres minimum. trois cent mètres moo nekk ci diggante cloture bi. ak euh, ak ak servitude ak servitude ok. d'ailleurs je viens de recevoir hier seulement le nouveau décret bi nga xam ne moo délimité. les servitudes c'est le décret 2000 euh, 2018 euh, je crois que 567 du 5 mars 2018 nga xam ne moo délimiter les servitudes le moment où je vous parle même sax il faut que ma ànd ak mes techniciens pour que ñu jéem xool ndax servitude yu bees yi am na lu mu ci yokk wala déet ñaareel ba aussi dans cette zone aussi le plan directeur actuellement ci la ñu nekk di liggéey parce que nekkul zone boo xam ne aussi dañuy bàyyi rek ñu dëkke n'importe comment même les village dañ leen di restructurer d'ailleurs projet boobu lancé nañu ko pour restructurer mhm. tous les villages yi nga xamante ne ñoo nekk aux environs de l'aéroport mhm. moo xam les villages déplacés wala ña fa des parce que il faut ñu xam ne aussi y a des villages aussi yoo xam ne fa la ñu des mhm. si je prends par exemple le village de Soun le village de Landou le village de Thiambox euh, Touli Lem. ñu ngi ne si wetu waaw tous ces villages là dañu nekk aux alentours de l' aéroport donc il faut que ñu normer ko pour que demain. la nga xam ne moo doon am Dakar bañ a reproduire waat fii mm. te kooku aussi mm-hmm. état bi jël na ci ay mesures yoo xam ne yu yu yu ferme la mais loolu sax laa doon euh, bëgg ñëw est-ce que mm-hmm. euh, euh, village yi nekk aux alentours de l'aéroport xam nga mm-hmm. généralement peut-être dañuy am ay tool est-ce que ñoom du ñuy céder seen tool yi wala peut-être morceler pour mën a jaay parce que léegi ko wax mu ne la dafa bëgg am kër fii wala dafa bëgg am terrain parce que gis oh. naa si ñoo xamante ni un million cinq cent deux ñu ngi jaay ay terrain si terrain yi nga xamante ni ci commune Kër Moussa la bokk voilà loolu moo tax. Mhm. ñu jël pour restructurer les villages pour arrêter mhm. ce phénomène-là. ok raison pour la kër peut-être que nag les populations noonu nous pas peut-être mesures yi ñu ci bëgg a jël parce que xam nga nit bu yoree suuf surtout séeréer bu yor suuf bu gisee nga ne ko bu laal rek mhm. li muy bàyyee xel mooy kii dafa bëgg a jël sama suuf. te ñun on voulait sécuriser dañ leen bëgg a sécuriser seen suuf pour que deme ñu mën a xam. seen suuf bi mën leen amal njariñ nan lañ ko bëgg a sécuriser plan directeur bi nga xam ne moom la état teg ñu xam ne aussi foofu ma leeral leen ne aussi mhm. c'est des terres du domaine national mhm. benn titre foncier newul ci zone bi mhm. amul dans tous ces villages amul benn titre foncier bu fi nekk tout c'est des terres du domaine national d'accord maanaam état moom moo ko moom état moo ko moom mais nag comme y a les droits boo xam ne ñun moom la ñu tàmm fii sama maam moo ko moomoon tey ma moomu ko. Mhm. on voulait aussi préserver loolu aussi pour que population bi demee. ñu bañ a am jafe-jafe ñu bañ a am jafe-jafe. Mhm. parce que il ne sert à rien aussi que. des des des des sociétés ñëw implanté wu fi. Mhm. les population aussi amuñu dëkkin wu baax. Mhm. demee aussi seen njaboot du ñu am fu ñuy dëkk ñun loolu la ñuy xeex. Mhm. peut-être nag la majeure partie des population mënuñu comprendre loolu. mais on voulait que ñoom ñu préserver li nga xam ne moom la ñu fi dese comme assiette foncière. parce que nag bu ñu fàtti ne. des centaines d'hectares voire même des milliers. la ñu jël ci ñoom donc li ñu dese bariwul. li ñu dese bariwul. non li ñu dese bariwul quand moo tax ñu bëgg ko préserver. Mhm. pour que demee loolu ñu mun ko jariñoo ñoom ak seen njaboot. Mhm. Euh, balaa may yegsi ci euh, euh, question bi nga xamante ni moo ñeel mbirum njaayum suuf bi. Mhm. fii nii damay fàttali mbokk yi ne. fii dañ fi fekk suñu njaatige parce que wax naa ne ku Futurs Médias puisque ñun fépp la ñu nekk ci ci Sénégal dañ fi fekk correspondant au groupe Futurs Médias. fii ci Thiès muy Cheikh Anta Diop donc Cheikh Anta. xanaa ñu bàyyi la rek nga continuer waxtaan bi ak monsieur le maire laataa ñu ñëwaat. jërëjëf Dieynaba jërëjëf monsieur le maire Momar Ciss defe naa ne fii duma fi gan yàgg naa fi ñëw. tout à fait euh, doon kii rek ndaxte jamono yi ñu weesu defe naa ne ñëw nañ fi lu yaatu yaatu ci ay mm-hmm. euh, population yi ni nga tudd léegi ay. Mm-hmm. suun ay landu ay mm-hmm. ñooñu doon def ay. manifestation doon yëkkati seen parce que. Mhm. dañu waxoon ne. Mhm. descos dañu ñëwoon. Mhm. rëdd seen kër yi. pour yëkkati leen. loolu benn na ni euh, kàddu yi bu ñu ko yëkkatee amoon lay manifestation. defe naa ne ay ñaari weer ngi nii déggatuñ leen. mbir mi fu mu toll ndax euh, indi ngeen ci saafara ah. waxtaan ngeen population. voilà yaakaar naa ne yaa ko waxal sa bopp ñaari weer a ngi nii déggu leen leen. pourquoi déggu leen leen donc yaa a un début de solution. parce que descos aussi comme ni ma koy waxee dafay def liggéeyam DSCOS joxewul suuf nanguwul suuf mooy waaw moo mu ngoog mooy policier suuf si te ñun la ñuy liggéeyal et puis c'est normal mm-hmm. ba ñu wooyee nit ñi expliquer leen devant tout le monde yaakaar naa ne comprendre nañu ne DSCOS ñëwu fii pour déposséder leen seen suuf non mm-hmm. mais nag comme collectivité locale moom la ñu dénk suuf si collectivité locale boobu moo war a jël ay mesures pour normer ko ba nga xamante ne ëllëg nit ñi ñu mën a dem ku bëgg a tabax nga tabax loolu nan lañ koy defee mooy li ma wax léegi ñu restructurer village yi xam tali yi fan lay jaar parce que bu ñu fàtt ne aussi y a ku de yoo xam ne dafa war a continuer dem y a le plan directeur y a les zones militaires yoo xam ne war nañu nekk dans la zone y des équipements collectifs yoo xam ne état bi war na ko fi def donc yooyu yëpp il faut que nit ñi comprendre loolu ba nga xam ne ëllëg ñoom fu ñu dëkk ñu mën faa dëkk dëkkin wu parce que il ne sert à rien li doon am Dakar muy am fii tabax say étage bi pare ñu xëy benn bis di ko daaneel te fekkante nag bu ñu waxantee dëgg rek nit ñi dañ dul xam euh, dañ dul dañ dul xam ki tooñ mais ki ki kiy fayu rek la ñu xam day fekk ñoom ñoo nekkul ci dëgg balaa ñu fay yegg na comme tabax yooyu amagu fi ñu régler situation boobu moo taxoon rek ñu indi DSCOS pour que DSCOS mun ñu dimbali ci liggéey boobu dimbali leen aussi pour que ñoom demee vraiment ku ci tabax aussi nga tabax ak xel mu dal dëkk yi ñuy yëkkati woon ñu mel ne ay kasu xaaj ak ñooyu mhm. euh, utal leen foo xam ne dañ leen fa waroon reloger waay am na ne woon dem nañu am na ñoo xam ne am na ñu fa desoon waaw tey jii ñi fa desoon est-ce que aussi mhm. euh, liñ doon laaj mooy ndàmpaay yooyu ak mhm. aussi euh, li nga xamante ni moom la ñu waroon jëflante ak ñoom est que lépp yemb na wala bon du ma wax ne lépp yemb na mais xam naa ne à plus de quatre-vingt-dix pour cent yemb na te it lépp loo xam ne xam nañu ko ci ci ñoo xam ne dañu leen a war a jox ndàmpaay te joxuñu leen ko vraiment ñu ngi def liggéey boobu léegi léegi bi ngeen di yegg si fii euh, ñu ngi may woo téléphone dama ko daa fekk ngeen di sax jotuma ko jël te kooku ci liggéey boobu moom lay def muy MSA. parce que benn facilitateur la boo xam ne moom la état bi jëloon teg ko entre AIBD et les population pour que nit ñi koy réclamer wu nga mën a dem foofu ce qui est sûr xam naa ne problème yooyu lañ may wooye parce que à chaque fois ñu woomal pour loolu la euh, loolu aussi du ñàkkaay omission quand day am mais su fekkente ne loolu am na vraiment ñu ngi def tout pour rectifier ko parce que bu ñu fàttali ne aussi AIBD mu ngi exister ba léegi waaw mu ngi exister ba léegi liggéey bi projet bi dafay continuer c'est pas parce que avion yaa ngi naaw rek gaa yëpp summi nañu seen i mbubb non non demewul noonu ñu ngi continuer di liggéey euh, beneen bi ci topp aussi muy population bi nga xam ne waroon nañu leen euh, indi ci site de recasement pour ñu dëkk fa là aussi euh, état def na li mu mën mooy lan dañu waxoon ne s'il y a des terres restantes ñu restituer ko les populations mais kooku def nañu ko les terres restantes boo demoon ci population bi nga laaj leen le conseil municipal def na une délibération pour ce qu'on appelle des terres restantes nga xam ne l'accord de Saly bi nga xam ne defoon nañ ko le 8 mai pour respecter ko ñoom boo demoon ci population bi tey nga tendre leen les micro daañu la wax ne vraiment la nga xam ne moo fa desoon ci suuf delloo nañ ñu ko am na ñoo xam ne seen choix mooy du ñu ñëw foofa la ñu bëgg a dëkk ñooñu kenn mënu ci dara seen droit la mais nag ku ci doon ñëw te itam sa kër a ngi fi taxaw sa caabi yaa ngi fi. amul kenn kuy nekk ci biti. vraiment kooku moom c'est déjà prévu waaye site de dégagement voilà man en fait fu ma bëgg ñëw euh, mhm. mooy xam naa ñiy seetaan émission bi ñu ngi bëgg mhm. euh, xam ndax euh, mhm. ba léegi yaa ngi jot ay demande pour attribution de terre demande d'attribution de terre liñ ciy jot dama mujje wax sama service yi ne leen bu ñu koy jëleeti ci registre d'enregistrement bi pourquoi mhm. parce que chaque jour c'est des milliers et des milliers yu ñëw kenn mënu ko enregistrer mhm. lii nekk fii yëpp ngay gis ak fii yëpp mhm. ay demande la mais c'est des citoyens sénégalais nag am nañu am nañu am nañu euh, droit sañ-sañ pour ñëw di ñaan fu ñuy dëkk waaye nag balaa ngay laax jaay da ngay laax lekk ba pare. olof Ndiaye ko wax. waaw ñun li ñu bëgg. mooy suñu population bi te dama leen ci ñaaxaat suuf si ñu am ñu téye ko. bañ ko bazarder. Euh, sànq am na benn question boo xaw a wax ci suuf tuuti. gis ay ñuy jaay seen suuf ay 1 million. 1 million 500 gis naa ko. voilà mhm. man je l'ai mhm. mais nag xëy na am na loo xam ne nit mënu ko contrôler na sa kër sax. Euh, boo ko doon contrôler tey jii am na koo xamante ne boo ko nee kaay lekk bu lu nit sañari sañari comme ni ko sañ na ne suur naa mhm. kenn mënu ci dara mhm. mais ce qui ñun ñu ngi def lépp pour que loolu bañ a mën a am mhm. peut-être nag c'est difficile parce que ki nga xamante ne xëy na moo moom toolam tey soxlaam taxaw na su ko neexee mu jaay su ko neexee mu jaay waaye nag njaay moomu aussi dañ koy teg ci yoon nan lañ koy tege ci yoon ñu ngi liggéey zone bi pour que mu am ay lotissement yoo xam ne c'est des lotissements administratifs autorisés mm. par les autorités c'est-à-dire par par par par le ministère chargé de l'urbanisme mm. d'ailleurs defoon nañ ko ci benn village le village de Touli nga xam ne autorisation bi génn na yeneen village yi introduire nañu ay dossiers mm. yoo xamante ne déjà eh, yooyu dem na ñu ngi xaar pour que autorisation yu mën a génn mm-hmm. nit nag dañu xaw a yàkkamti mm-hmm. mais bu ñu xaaree bi lépp génn yaakaar naa loolu mooy ëpp valeur ñi nga xam ne aussi dañu fay ñëw di wut fu ñuy dëkk nañu teeylu parce que aussi euh, dañuy dañuy dañuy dañuy yàkkamti ba parfois ñu ñëw di dugal seen xaalis foo xam ne ëllëg leneen mun na fa nekk parce que tey man mii di wax ak yow mënuma la wax route bi fii lay jaar wala fële lay jaar sëf mhm. wax naa la ko sànq ñu ngi soog a jot nii la décret bi nga xam ne moo délimité mhm. délimité les servitudes mhm. donc tey bu ma gisoon Cheikh ante di fa jënd dama naan Cheikh Anta bul jënd ndànk ndànk ba li am tuuli am li am tuuli mooy lan arrêté baa ngi nii signé par le ministre déjà xam nañu ne foofu moom lotissement administratif bu tegu la ci yoon mhm. loolu aussi eh, ñi nga xam ne ñooy ñëw aussi di dagaan si suuf ci biir na nañu xam ne nag <laughs> ci commune Kër na <laughs> nañu xam ne séeréer yi aussi dañuy téye seen suuf ndax itam xam na ñu la xewoon Ndakaaru te xam nañu ne mooy ñëw fii spéculation foncière foncière bi mhm. voilà mais est-ce que euh, ci euh, loolu waxtaan ngeen ci ak euh, ak gouvernement bi pour xam aussi ñoom yan façon suuf la ñuy soxla ci yéen pour aussi ngeen mën a di joxe parce que aussi nit yi demande bu bu bare. Mhm. doo leen mën a jox ñëpp mais mhm. aussi dina am ñoo xamante ne leen ciy compal pour mën leen ci mhm. jox. waaw xam nga foofu aussi souvent damay dégg bon ñenn ñi naan gouvernement bi moo ñëw bëgg a jël suufu nit saa aussi damay assurer nit ñi ne. benn mètre suuf état jëlu ko. ci suufu population bi pour def ci qui que soit maanaam ay lotissement ak kenn xamul mhm. état lotissé wul la commune moo am latitude pour mën a def des lotissements mhm. état bi def ñuy assister techniquement c'est-à-dire avec les services techniques urbanisme cadastre euh, euh, impôt et domaine et tout dinañ leen ci kanam loolu moom vraiment ñun ci cadre boobu la ñuy liggéeyee te moom la ñu bëgg aussi nit ñi xam ne ci cadre boobu la ñuy liggéey vraiment ñu ngi ciy liggéey ak ñoom ñu ngi ñuy jàppale ci loolu mm-hmm. en tout ci kanam sax danañu dem euh, euh, ci euh, Pascal Ndione voilà mi nekk kon ci impôt domaine bi nekk ca mm-hmm. Thiès mm-hmm. incha allah comme que gën a waxtaan ak moom ñaax askan wi ñu moytu waaw lu jëm nag ci njëndum suuf yu ñu tegut ci yoon voilà xam nga njëndum suuf dañ koy wax rek waaye suuf kenn du ko jënd waaw suuf de ménagère ko jaay waaw jaay parce que dañ ko war a attribuer les citoyens bu ñu uh-huh. waree dëkk dëkk bu ñu waree bay bay uh-huh. mais xam nga rek euh, mais yaa ngi wax dañ ko war a attribuer xam naa ne bu hmm. émission bi jàllee di nga bëri ay demande euh, monsieur euh, monsieur le maire waaw mais mais mais c'est normal uh-huh. parce que c'est des sénégalais fii ñu dëkk Mm-hmm. maa ngi dëkk Ndakaaru maa ngi dëkk Ziguinchor c'est des sénégalais maa ngi dëkk Fuuta c'est des sénégalais uh-huh. tukulóor yi bu ñu ñëwee aussi bëgg fi suuf aussi <laughs> mën nañu fexe rek ñu wutal leen ci quelques morceaux rek uh-huh. ñoo xam ne mën nañu fi uh-huh. sàmm ci benn côté bi bay ci benn côté bi ñu ngi jeexal pàcc bu jëkk bu émission sama kër gërëm la bu baax monsieur le maire di fàttali ne émission bi ñaari pàcc lañu koy def parce que mm-hmm. diggante Kër Moussa commune bu Thiès ak DGID euh, mm-hmm. mënuñu ko yemale kon ci benn émission lan de la fin waaw moo de la fin pour euh, ginnaaw bu ma d'ailleurs remercier le groupe Futur Média mhm. parce que pourquoi euh, vraiment da di groupe boo xam ne ça aussi tey am naa occasion pour wax ko kenn ku ci nekk citoyen bu nekk mën na ci gis boppam ak niveau boo mën a situé wu vraiment mën nga ci gis sa bopp te loolu aussi vraiment dañ leen koy conseillé nangul leen ko euh, loolu aussi vraiment dañ leen ci remercier beneen bi ci des aussi dama koy jëmee ci sama population mhm. mooy nañu ànd ak dal xam ne mbirum suuf nekkul lu yomb nañu ànd ak dal xam ne aussi état bi ñëwul fii pour déposséder leen seen suuf nga xam ne dootuñu amati fu ñuy dëkk wala dootuñu amati fu ñuy bay là pour vous rassurer sax d'ailleurs état bi déclassé na ci forêt classée bi quelque trois 300 hectares pour joxaat ko population bi nga xamante ne ñoom lañu ñu directement nga xam ne ñoom lañu jël seen tool. je profite de l'occasion aussi pour remercier le président parce que it ñun ñoo ko ñaanoon ne ko le village de Mbadat village la boo xamante ne c'est un village historique comme jëlee nañ ko fi pour village bi bañ a dee ñu ñaan ko euh, le le pavillon présidentiel ñu tudde ko le village de Mbadat séance tenante le président accepte ko. vraiment loolu aussi ñu ngi ko ciy remercier comme ni ma leen ko waxee comme seen rajo bi seen seen seen télé bi ak rajo bi yëpp occasion la pour ñun aussi ñu jaare ci suñu message ndax xam naa ne président daana ko déglu lu bëree bëri di ko seetaan di ko xamal ne aussi ñu ngi ko ciy sant au nom de toute la population de Kër Moussa voilà merci monsieur le maire di gërëm aussi sa conseil yi nga xamante ni ñoom ñoo fekkee waxtaan bi mm. euh, mais aussi chef de quartier yi ñu ngi leen di jox kon seen wàccuwaay ñu wéyal kon émission sama kër xuus dem ba Thiès di jaajëfal bu baax a baax euh, waa commune Kër euh, Moussa euh, ci dalal bi nga xamante ni dalal nañu ko gis ngeen maire bi di Momar Cissé lu mu wax ci assiette foncière kon bu Kër Moussa am nañu daanaka kon assiette foncière suuf ba des na fa mais la fa des bariwul te nag askan woo fa ne danañu def seen kéemtalaay kàttan pour mën a protéger kon suuf ba ñu yor kon nag di wax mbokk yi nga xamante ni ñu ngeen di jaay kon ay suuf ci commune Kër Moussa nañu def attention bu baax a baax baax. si la ñuy jënd euh, maire bi wax na ko spéculation foncière bari na fa kon nañu def attention bu euh, baax a baax ci loolu nag mbokk yi dañuy xuus ba léegi seen émission sama kër maa leen ko doon wax euh, kon ci ndoxteel gi dañoo fas yéene kon ànd ak Banque de l'Habitat du Sénégal ñoom nag suñu ay partenaires lañu. lieutenant Fodé Manga, commandant la section, commandant les honneurs. Monsieur le mbokk yi nag euh, dañuy euh, jógee Thiès euh, rek ay simili ngir dem kon ca Bambilor comme ni ngeen koy gisee nag ci image yi ñu demoon fekkee kon cérémonie de réception îlot C ak F bu projet Comico Bambilor xam ngeen ne nag banque de l'habitat du Sénégal daal ci liggéey liggéey bu am solo ci loolu nag ña nga xamante ni ñoom ñoo jot ci logement boobu daal cay kontaan loolu ñu dégtal leen sax ñoom li ñu jot a wax ci miir mi. waaw ñu ngi yàlla de dugg waay moom macha allah war a sant yàlla naam boo yoree jaboot ak lu yaas beeg yooyu day métti. Amadou Touré Koli sergent. buñ ma attribué bâtiment buñ ma kii sama notaire bi woo ma mu ne ma sa bâtiment bi pare na ma ne ko dégguma la bu baax waxaatal li nga wax <laughs> parce que je ne pensais même pas à ça. adjudant doon servir le ministre principal des forces armées ma jeexal temps yi passé door di ñëw rejoindre fii Comico. waaw sant yàlla bu baax rek. sant yàlla bu baax parce que nit ku ne loolu nga doon ñaan yàlla nekk ci service pendant trente cinq ans nga retraité am foo duwal sa njaboot muy sutura loolu bu lu ko yàlla mayee daanaka deseetul dara sant yàlla bu baax rek alhamdulilahi rabbi alamin ci cérémonie euh, bi ñu doon réceptionné kon logement yooyu directeur banque de l'habitat du Sénégal euh, ñëw na bu baax a baax euh, ci koppar yi ñu dugal banque de l'habitat def ko ngir rek daal di dimbali askan wi. Nous nous sommes retrouvés ensuite en novembre 2013 pour réceptionner la première tranche de ce projet qui est à ce jour le plus important projet en termes de logement financé par la BHS depuis sa création, promoteur public, privé et coopératif confondus. nous nous retrouvons régulièrement pour lancer et réceptionner les différentes tranches et phases du programme. Nous ne nous en lasserons jamais car la répétition est, dit-on, pédagogique, surtout quand de partager l'exemplarité. L'UNIFO Bambilor réaménagé porte aujourd'hui sur 2814 logements et 624 parcelles viabilisées contre 1037 et 506 parcelles au départ suite aux Son coût global ressort à 23 milliards 900 millions de francs CFA répartis sur sept îlots. Les îlots de près de 930 logements ont pour la plupart déjà habités pour un de 6 milliards 9 payés à 18 entreprises. Les travaux des îlots C et F que nous réceptionnons ce jour portent sur 255 pour un total de 1 milliard ci loolu nag jëwriñ ji di rafetlu bu baax euh, liggéeyu banque de l'habitat du Sénégal waaye laataa ñuy déglu Augustin Tine di jëwriñ ñu dénk wàllum forces armées dañuy déglu colonel Stanislas Ndour moom mooy PCA wu Comico mu ñëw nag ci nan la ñuy liggéey ak génération yu yees yi génération bu bees bi ci wàllum kon euh, gendarmerie ak police euh, ngir ñu mën a jot ci kër ca na mu gën a gaawee. tey def nañu beneen tranche bu 255 logements yoo xam ne gis ngeen liggéey bi mu mel. gars yi récepté nañ ko ils sont tous heureux waaw baax na c'est bien kontaan naa kontaan. dégg nga li euh, kon DG euh, BHS wax nee na il faut que ñi nga xam ne ñoom ñooy doog a génn kon ci euh, école de formation yi ñu bàyyi xel ci kër. chaque fois bu amee école buy génn dañuy yónnee une délégation ñu dem rencontrer leen waxtaan ak ñoom parce que fu mu nekk nii au début dañu noonu joxe ay apport de 10 pour cent loolu amatul bu fekkee da ngaa teel a jóg nga génne école nga indi sa bulletin de salaire ñu xool ko mun nañ jox même un logement sans nga joxe apport personnel. moo tax chaque fois dañuy dem dans les régions dans les écoles dans les campagnes ñi nga dem dañuy dem campagne ñu waxtaan ak ñoom pour leur dire que nañ ci teel a jóg bu ñu ci teel a jóg rek mën nañ am logement sans apport personnel. doomi aadama bu nekk bëgg kër pour yow pour sa njaboot surtout militaire bi nga xam ni da nga fiy jógee donc euh, mën nga voyager génn bitim réew wala nga nekk fi euh, donc sa sa njaboot gi mën na nekk en sécurité donc lii si euh, rek lañ ci am. Euh, beneen bi mooy nii vraiment li ñu ko kër yi ni ñu ko amee neex na vraiment yomb na à la parce que am kër ci moins de 9 millions yaakaar naa loolu amatul Sénégal donc dañ ci félicité naturellement waa BHS bi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi euh, BHS ànd ci ak ñi nga xam ni ñoo ko ci accompagner donc mooy architecte yi mooy euh, donc entrepreneur yi ñëpp ñi nga xam ni ñooy ànd ak ñoom ci liggéey bi di jaajëfal bu baax a baax waa Banque de l'Habitat du Sénégal kenn du ñoom mais euh, dañuy ñëw léegi ci page de publicité ak spot euh, kon euh, Sococim Industrie mais buñ ci noppee nag mbokk yi ñu seetaan kon élément bi nga xamante ni ànd nañ ci ak waa tey ko ñoom ñi nga xamante ni ñoom am nañ ay chantier yu bari ci pôle urbain bu ñaajo waaye dañuy liggéey lu gën a bari ak waa cimenterie bii di Sococim di gërëm bu baax waa Sococim Industrie gis ngeen waa Teyko ni ñuy rek daal di liggéey ak ciment bu euh, Sococim ngir am ay bâtiment yu baax yu mucc ayib yu dëgër euh, daanaka dañuy liggéey rek ak waa Sococim comme duñ koy faral di waxee Sococim dafa tabax Sénégal laata indépendance euh, ba léegi di leen jaajëfal nag mbokk yi di leen wax nag ne émission bi dafay rek daal di wëy fii fukki fan ak juróom incha allah muy deuxième partie bu ñu jagleel kon région bu Thiès danañu ñëw nag ci bi yoon nag ci commune Thiès waaye aussi waxtaan ak waa DGID di euh, euh, direction impôt domaine ci naka la ñuy rek daal di aare suuf si euh, rawatina nag ville yu bees yu yees ñu fi rekk daal di tabax mais aussi aéroport yeeg yeneen infrastructure ñu bëgg tabax fii ci diwaanu Thiès di jaajëfal bu baax équipe bi ma àndaloon Amza Diallo waaye aussi Alioune Diagne ci logistique bi aussi Lamine Ndour montage bi Habib Ly di leen gërëm bu baax ba fii léegi fukki fan ak juróom incha allah si télévision Futur Média ginaar gi baax na ci kër gi ne saa yoo ko dàqee wax ci say soxla